Notre plus grand plaisir est de vous servir, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans votre émission L'homme de la semaine, l'émission qui est au suivi de toutes les générations sur Westside TV, Dakar Midi et Kirik Dakar, la télévision, les télévisions qui ont été décampées les décors, euh, mais bien partout au Sénégal et eux-mêmes à travers à travers le monde comme d'habitude tey day am ben daanaan bu mag de se dal ñep sommes xam Sénégal daratul ñu koy nous ñu naan ndiogu Ndiogou Mbaye na bagage yi dugg ndiogu Ndiogou. maaleykum salam moomu Nous ngi lay nuyu. Mm. di la ziar di nuyu téléspectateurs yi. ak képp kuy télé yi maa ngi lay mm-hmm. ngi lay fekk fi ngay mm-hmm. di la nuyu di peace and love. peace and love yu maa ngi Ndiogou mbay à chaque fois bu ma koy waxee nag suñu xel yëpp dem si xale jigéen xale jigéen bëgg nañ ko lool lool lu waral lool. ah mais xam ah, nag samay doom lan. say doom lan ñii samay yaay lan. Mhm. ñii samay bàjjen lan. waaw mhm. ah, ñii ñii ñii. sax samay soxna lan mën naa leen takk. Mhm. ndax yàllaa ne nañ takk ci ñeenti soxna. tey pare nga pour takk ñeent soxna. non man isu damay am ñeent ak benn takkoo. ay loolu fort ay. ak benn ak benn takk suuf. ak benn takk suuf si ci suuf. si suuf ci suufa suuf. <laughs> mu doon loo xam ne de waaw tey bu ñu bëggee xam maanaam kan mooy njoogu Mbaye. Mhm. waaw Ndiogou ko bëggee xam mooy Ndiogou Mbaye euh, di di di di ndaanaan. Mhm. Euh, juddu ci ndaanaan juddu ci ngéwél. Mhm. màgg ci yaroo ci. ndax dañ ku juddoo ci daqaar yaroo ci lingom kenn doo laaj forox. Ya, tollu kay ngay ya, def yàlla dogal na jur ci askanu ngéwal eh, suñuy baay mhm. nek ay ndanan suñuy mam nek ay ndanan xon mhm. ñun yaakaar naa ni bu dee laajte njogu mbay suñ ko day wax mhm. fii la ñuy fanaan eh, njogo ngi nii ndaw la buy door eh, waaye nag ku keree maanaam société la yor groupe am Euh, di doxal ba mu neex. di doxal ba mu neex. waaw Ndioukou Mbaye kañ la commencé dugg maanaam dugg si lii si musique est-ce que musique dafa nekk loo xam ne peut-être li nga doon la wala talent la boo xam ne yàlla moo ko def si yow. waaw musique bi nag euh, maanaam lu ma doon la mais dama ko dem jàngi. Mhm. ndax maanaam doon rek doyul. Mhm. li ngay doon ba pare après nga dem jàngi ci say mag. Mhm. comprendre nga. ñun dañ ko jàng ci mbedd mi ba pare dem jàng ko ci école des arts yi. ndax boo gisee man dañ ko jàng ci mbedd yi. mooy dañ daan woy ay ngénte mhm. ay xumbal mhm. ay tuur mhm. di woy ci bongo di woy ci sabar yi yaa ngi dégg ba mu yàgg ñu dem nag ci musique nekk ak suñuy mag ñu ni teg ci kot comme kan ku ci mel ni jiite maalaw sama mag la ndeysaan ku ci mel ni Malla Mbaye sama mag la sama mais à part amoon ngi benn idole boo xam ne peut-être Sénégal yëpp xam ne nga mu nekkoon sa référence Mhm. waaw mais idol moom dama ko bari le ci mel ni papa Youssou Ndour sama idole la. Mhm. ma koy nuyu. Euh, parce man képp ku mën a way rek ba ci xale bi doog a judd sama idole sama idole la. Mhm. man xeeb ma kenn xale bi doog a judd am ñetti at lamintaal sama rakk la mais bu mënee way rek di ko teg ci yoon damay roy ci moom man ñëpp lay roy. ñëpp mais nag ci li may roy mooy ci lu baax. mooy wax lu baax. def lu baax def lu baax. jëf ju rafet mm-hmm. rafetal selal mm-hmm. jàmmal jammu dëkkal mm-hmm. dëkkoo happiness ban instant nga toba ba si nga xamne man mi kat Ndiogou mbay nanan la comme ni ko waxee say kàddu que war naa musique Sénégal tek sama loxo. wa mais man man bima ma rek la xamni ni la ndax bima ma sama yaay di sama bàjjen. sama baay di sama nijaay may bété bété du day war ci la nak xol sama deret. xamni sama yaay li sëñ Fall ni woon maay Sénégal ma xam ne man Ndiogou Mbaye maay Sénégal. Sénégal si mbalax maane. waaw ah. non. boo passé ci mbalax maane ndax mbalax maane am na ñoo xamante ne ñooy àdduna. Mhm. comprendre nga. Mhm. ku nekk rek li nga doon moom boo ko bañee dafa fekk nga gën caa ñaaw te nit li nga doon rek nga mën a wax. Mhm. mën a wax li nga doonul. waaye fii loo fiy jaay rek. amna na lu ko ëppale. mais des fois tamit di nga toog ba si yàgg peut être yaa ngi koy wax sànq tong ba si yàgg ngay woy ay mariage wala ay ngénte ak nu mu demee noonu. tong ba si yàgg nga jàpp ne man mii kat mun naa dem wut sama groupe kañ nga toog ba si yàgg ne man Ndiogou mbay pare naa pour mën a wut sama groupe pour mën a dugg si musique sénégalaise. waaw man nag ndeysaan nu ma woy ay ngénte ay mariage sama benn mag nag moo tax ma am groupe. Hmm. su ma groupe c' est grâce à moom. ma amee sama créé sama société c' est grâce à moom. vraiment. sama mag jooju moom moo tax ma am groupe. depuis kañ nga commencé def musique. ba nga juddoo man man non bi ma juddoo defuma musique dama doon woy rek. Mhm. kañ nga commencé dugg si musique carrément. Ah, musique bi ma ci duggee noonu ay deux mille deux mille deux mille mille deux mille quinze deux laa dem doo ko dem école des arts mais avant deux mille quatorze nag maa doon woy. bien sûr. nekkul ni dama woyul woon. Mhm. maa doon woy ay simb. di woy ay mbapat di woy ay ngénte di woy ci kër gi. bu ñu toogee samay mag dëpp ay paan. ngay woy ñoom day biram. comme comme comme kër kër ngéwél rek comme ni muy demee à chaque fois. waaw bu dëppee ay paan <coughs> di woyandoo. Mhm. ñoom day biram bu ndee woy sama benn mag ak sama benn yaay ndey koor du mbay. Mhm. bu ndee woy nii ci kër gi may aw man. mu bokk ci woy wi su ma jàngee ba wàcc bokk ci woy wi. la ngeen doon woy may daan xawaare rek. comme naan xawaare xawaare yaay nañu xawaare ci kër nañu xawaare yaay dañuy xawaare ci kër gee loolu la daan way ndeysaan dañuy xawaare ci kër ma jooja borom gaal ñun ñii dañuy xawaare ci kër gi. ndeysaan lépp ci kër gi lépp ci kër gi. gars yi dëppaan yi. kër kër kër kër maanaam loolu la naan def ci biir kër gi. xawaare xawaare kaay leen ñu xawaare ci kër gi. kër gi maanaam xawaare bi du génn kër gi. day nekk ñu teg añ. billaahi. boobu maa ngi doy ni comme Lamine sama rak mhm. naa ngi am ay 9 ans 10 ans commencé xamé ngi toj kër gi. ma commencé xamé pas toj kër gi sax na samay mag ñoo ma daaxoon way et ça boobu ma damay aw rek. nekk seen biir di jàng boobu ñom sax mënuñu ma jangal ndax ñoo mëna ñu bokku ñu ñuy def ñom dañuy way wayu ay traditionnel. Mhm. ak ciosan la ñuy woy. comprendre nga tamon benen domaine lay woy may way ciosan way way damay woy moreen mhm. damay woy lépp damay woy lépp loolu dama ko jàng parce que mënoon naa traditionnel mën naa ko mhm. parce que ci laa juddu mais leen loo xam ne mënoo ko si dem dem li ma mënul nag mhm. laay gëstu ba léegi nag maa ngi jàng nag parce que mënuguma dara te vraiment njàng du doy. mais Ndiogou Mbaye ak fu mu toll Sénégal yi foo tourné ñu naan Ndiogou Mbaye Ndiogou mhm. est-ce que tey jii dépassé njàng boobu ngay wax parce que tamit. Ah, bu ñu xoolee xam nga Youssou Ndour. Mhm. xam nga Youssou Ndour mhm. pareegul pour jàng. koo xam c'est le maestro. waaw mais pareegul jàng parce que moom boo gisee ni muy doxalee. Mhm. nga xam ne pareegul pour jàng. mais jàng bi jàng bi yëpp da nga war a dépasser ay classes est-ce que Ndiogou Mbaye fi mu toll nii yaakaaru woon fu nga toll. Mhm. à l'instant T bu ñu xool say morom. àdduna nga dépassé fii àdduna. Mhm. non ñun macha allah vraiment ñu ngi sant bu baax. waaw ah waaw sant sant ñoo ngi boo ñu xoolee sax xam ni ñu ngi sant. boo nu xoolee. xam ni ñu ngi sant maam yàlla bu baax a baax. di gërëm Seydina Mohamed maa ngi jégalu. amul problème ci yaa ngi dégg <laughs> boo ñu xoolee xam ne ñu ngi sant mhm. ndax li nu am dañ koy sante rabbana ndax am na ñoo xamante ni yaa ngi dégg. Mhm. bu ñu amoon li ñu am dinañ sant. Mhm. ndax yàlla dañoo juddal may ñu ay tànk. may ñu ay loxo. may ñu ay bët ñuy gis. loolu weesu na sant. mais waxuñu waxuñu sant boobu fii instant on va on va parler de la musique. tu mhm. wax maanaam si cadre musical lay wax. mais cadre musique boo déggee ma la mangi ngi sant. Mhm. moi mangi ngi tous toujours tous les jours damay tëgg. Mhm. kon loolu weesu na sant. alhamdulillah rabi alamin bu waxee wax nga ko. ñu ngi tëgg muy def ay weesu gise fermé barki dem ñëw ñëw nga Sorano. bien sûr mais gis nga la fa xew. bu ñu waxee Ndiogou Mbaye wax nga ko sànq. ne waaw gise fermé kay loolu jarul dépassement. ba fa fa laa jëm bu nee hmm. 2014 nga commencé commencé lii di musique. moom nga wax waaw 2014 ci laa dem di jàng musique laa. Hmm. waxuma ci la am groupe man 2017 la am groupe. 2017. waaw ci laa créé groupe. su ma hmm. mag moo tax ma am groupe. ça

non moom Ibro Naajo bi muy woy mm-hmm. Ibro Naajo ñun la doon àndal di woy bi muy woy du 2019 da ngay déglu dama ne la bu bu Ibro Naajo Ibro Naajo bi may wax moom xam na ko Ibro man Njoogu Mbay may wax ak yow mm-hmm. sa frère mm-hmm. sa doomu ndey bi nga daan nekkal di lekk ndoog moom di naan ndoog moom ngeen di woyandoo sibb te léegi mu raw Ibro Naajo non Ibro Naajo bu ko raw bi yaay gis raw non man lu man du may gis mais internet yu setan ak manam ño xamne ñong ci milieu showbiz ñom la wa non man mën na japp sa daf ma raw parce que xam japp raw mhm. parce que nga gis mais man jogu may non du man may gis mais enter. mais amul ben internet bu wax lolu non man man duma sama xaar lay wax lan lan moy raw <coughs> raw ci musique ci musique musique moy raw daf ma dakh way non daf ma ëpp ay programme mhm. dafa teug fu ma teugul mhm. dafa dem europe te dew europe si yooyu yëpp dinañ si ñëw yëpp après. waaw léegi léegi kon lan mooy raw laa bëgg a xam daf ma maanaam moom bu taxawee day way man du ma way wala qu'est-ce qui se passe. Mhm. lan mooy raw. raw mooy maanaam tey jii nii Ibra Naajo bu daal di génnee si mbedd mi Sénégal yëpp peut-être mun nañ xam wala bu génnee son tey même pas une heure de temps am nombre de vues par rapport ak kii di ak ak kii di. non non non yow duggoo sama compte. man boo duggee sama man boo non non taxawal rek man bu ma dénnee lu ma génnee. Mhm. balaa moom 30 minutes waxuma rek man. Mhm. waaye famille peex rek. famille ba ma bokk dañuy seetaan ba mu doy di seme xon yow yaa ngi réer may Sénégal may réew mi may yëmbal kenn nga jàpp ne fu nga toll ni normalement foofu nga war a toll non fi ma toll ni fi ma toll ni euh, du ma ni dama koy dépassé. non dama waxuma dama. waaye damay damay damay damay ñaan rek man ab jaam laa. Mhm. Hmm, man nak ni may gis dama xawa gëm yalla de. man kat bu gëm rabbana la. rabbi hmm. si jëlaali wal ikram. maanaam hmm. damaa mënta ndamu. te du musa ndamu. ndamu baaxul sax. ci de nga ma man luma def def def def dama ya alhamdullilah rabbil alamin. duma ni limay def dama koy dépasser par force. parce que doxaluma yalla moy maye. mais ñun japp nañ ci suñu xol ak suñu waccay ak suñu oyof. di suufee suñu bopp ci yàlla di ko wax ni yàlla yàlla defal ñëpp jàmm dafa ko mboolem jullit waaye li ñu bëgg rek mu ne suñu xol yàlla na ko yàlla defal ñëpp ak mboolem jullit mhm. waaye dama ni dinaa def lii dinaa def lii dinaa def lii mhm. waaye nag xam naa li ma bëgg a def mhm. te incha allah rabbi dinaa ko def incha ma def ko nag day sopp yàlla rek mais on parle de la musique te bu waxee musique il faut les ne lay tudd lii di showbiz affaire de showbiz moom amul affaire de yalla ak ni ni nii maanaam yow yaay confirmer sa talent mu daal di sénégalais Sénégal yi non non musique mais showbiz am na da ngay dégg non non non attends attends attends boul wax loolu yow boul bokalé non bokalé mo ma milieu showbiz day wax. <coughs> non non attends milieu showbiz showbiz dafa amna ñuko dundou pour yalla mais amna ñom ñu ngi koy dundou da ngay dund pour yalla man damay man lepp lu may def ci aduna mhm. dama ci xol sama digënté ak yalla ba ci ni may wax ak yow ni mhm parce que je suis un musulman. comme comme comme Sénégal 98. non amna ay un lañ mais ñu julit bi. Hmm. na ñom ay jullit lañ. Mm-hmm. Mm-hmm. ay musulman lañ mais ñom duñ teud sax. Mm-hmm. ba xalaat ne ñom bisina jot. ñu tegg leen ci mais Ndiogou Mbaye yow do imam, un la fi invité. non du cadre un ya dugg ci un yalla yow. non parce que yow ya parce que man bo un bo tu non non attends dama ni man man. sama lépp dama koy tax ci loxo yàlla nga bëgg ni ma soo bis amul yàlla loolu benn artiste moo ko fi waxoon muy Omaro. non dangay déglu moom moo taxawoon. bu bu dangay déglu loolu nga bëgg animateur la yaa ngi koy roy. non yaa ngi tooñ non roy du bu wax naa. Eh, kooku sama seex la sama jumeau la bu ma jaxasee ak moom. Omaro mu ma jaxasee ak moom. chaque jour mu invité ma télé moom njëkk jox micro donc kooku maa kooku xam nga yow moo jox micro. mais man yow bi nga ko xamee yàggul. mais kooku taalibe Serigne Saliou la bëgg Serigne Saliou mhm. di dund yàlla loolu xam naa ko si moom. waaw ah, tey jii fa laa jëmee lu tax sànq ma la ko est-ce que fu nga doon toll tey ko euh, mosoo nga dem lii di euh, concert kii di Sidi Diop bëgg a woy tamit woyoo est-ce que du loolu loolu moo tax ma ne la est-ce que fu nga doon toll tey jii nii ñaa ngi tudd sànq kii di Ibra Naaj ak say morom yu bëri am ñoo xam ne bu ñu demee soirée Sidi Diop sañ ñu leen bañ jox ñàkk jox micro. léegi da ngay jël benn image ah. mhm. tontu bi. non waxuma loolu de waxuma tontu ak image ak yooyu dama ne est-ce que mës mës nga ko. non dañuy déglu nag yow maanaam tungu ne du toog. Mm-hmm. tungu ne. Mm-hmm. du toog ñuy nataal. waaw Sidi Diop mu mm-hmm. tudd dama dem soirée am joxuma ma woy. dama ne ndax mosoo dem soirée am jox la woy. ndax mosoo nga dem soirée bëggoon yëg. joxuma ma woy. waaw non saa ma dem soirée damay jox ma woy. mosul am. mosul am loolu amul. Sénégal yi ñoo ñuy déglu mbokk internautes. Bikan lo. Bikan bikan. Bikan. Lo mau sambil bikan kan nggak? Lek merci c'est bon. Kon Sénégal da di mana? li dama ne la yow dem ba nga sam di bi lah? Sang yaa orang waxu yàlla kon ça veut di borom. Mhm. Est-ce mus dem suara Sidi Diop. bëgg te soirée Sidi Diop. Mhm. Euh, dem naa fa. Mhm. man ñaari laa mos a dem ñetti astafurla ñetti yoon. Mhm. laa mos a dem soirée Sidi Diop. benn bi dama ñëw mu teral ma. jox ma ma woy beneen bi dama ñëw baal si. maa amul woon envie maa ñëw yéeg sama VIP. ànd ak sama gang. mu ñuy way ñu koy may xaalis man Pape Torino. yaa may xaalis Sidi Diop. da ngay déglu nag quoi non da ngay déglu waxu man maa ko may xaalis ñu koy teral ñu koy may xaalis mooy ñi ma àndal ak man même bu dee man sax mën naa ko may xaalis mhm. parce que am xaalis moo ko may bien sûr yàlla alhamdulilah si nga ma maa ngi sant alhamdulilah mhm. bul dugg ci gàmb bul dugg xaalis xaalis du dara këyit la rek non xam ko damay léegi mhm. da ngay boo bëggee suñu waxtaan neex da ngay déglu nga posé ma question ma répondre la wala yow bàyyi la ak wax ci comme que yow waxkat nga mbaa yow ñooy wax ñooy wax moo suñu liggéey comme yow Sénégal yaa ci dàq wax <laughs> macha waaye nag wax deesu ko man da nga koy teelu ndengañ ko dóor ko mbot mu dem. moom lay def nii waxkat boo gis seen kër am na waxande. Ah, waaye wax bu jure doom laaj mu nu muy tudd. muy tudd déglu. moo tax maa lay déglu. boo ma dégloo di nga dégg. acca yow yaa des. Ousseyn Mbaye astafurlah. <laughs> Ousseyn Mbaye Ousseyn Mbaye ko wax sama xarit. ma ne. Mhm. Sidi Diop. Mhm. ñett yow laa mos a dem soirée mhm. bi mu juddoo ci njëriñ beeg góor. bi mu jur benn bi dama dem mu teral ma ma woy ba dagg mu may ma xaalis beneen bi dama amoon envie baal dama ànd ak su frère Ndaama Torino Pape Torino ak kan man Ndaama Torino Pape Torino je pense ñu àndoon de biñ àndee mu woy ñoom Ndaama woy Pape Torino mu àndandoog ñoom mu gisaale ma woyaale ma may ma ñu may ñu teral ko comme ku bugg a feeru xaalis ñoo mhm. ñu may ko xaalis xon comprendre mhm. nga après mu jeex ñun ñu dem tal suñu auto dem ñibi mhm. benen bi moy samedi bi passé bi mu ñëw bi mu séné rek. Mhm. lam jëk def moy daf ma sagal man bi ma yégué ci kaw sen bi sax. mënumaa mhm. way man bo gisé ngir teral ji ma teral. xon koku sama xarit la. sama frère la. sama doomu nday la. sama confidente la. sama lepp la bayi len jaxasse artiste yi. mais saytaan ngeen trop. <laughs> lu la neex waxal xam nga baax li la wax mais buñ joggé fofu ci sidi job est-ce que tay di ni am nga ay contact ak kidi di Wally Ballago Seck. waaw koku koku koku wessu na am contact ci mom man hmm. ñoo boko ben mam may sa biige mar man a sek mo jur Aminta mbay Aminta mbay mo jur njerebe njerebe mo jur ñogu mbay hmm. yaa ngi dem soirée am. soirée am nag dogal ni. euh mang fay dem di Bali. way may woyoo. da ngay dem soirée jàmm di baal rek tant que artiste. attends attends dem naa soirée baal benn yoon. Mm-hmm. demaat baal VIP laa nekkoon scène bi mooy xat. Mm-hmm. man su ma ñëwee gis artistes yi bari du ma yéeg. lu tax parce que man xëccoowuma li may def man damaa mën li may def ñiy yéeg foofu mal. waxuma maa dàq way de. Eh, non non non bàyyi li ngay wax nag xoolal man man affaire ragal lii laa laay bañ nag Ndiogou Mbaye Ndiogou à chaque fois bu ñu waxee artistes yi fii ku fi toog da ngay assumer. mais léegi ma sànq yaa doon wax naan da nga may déglu. léegi te ko. Ah, waaw ne la. Mm-hmm. artiste maanaam milieu showbiz la ñuy wax. Mm-hmm. showbiz show maanaam mooy lu tàng. Mm-hmm. tey jii nii mënoo ñëw sànq dem nga ba naan ay artistes yu fa nekkoon maa leen mën nga daal di retenir taxaw. mais nag nit ñi nga assumer bañ. non non da ngay assumer. xam a assumer may seetaan parce que am na ñoo xamante ni dañ lay bëgg bëgg bëgg. kon nga wax nekkul ci maanaam nekkul ci man xam na nekkul ci man parce que bu nekkoon ci man dama koy àggale. kon ah, hmm, waa léegi dama la bëgg dama la bëgg wax ni nit. Mhm. nit kenn mënul ñëpp man ku ci ne nañ bàyyi yaa fi man gi fi ne ku ci ne am na ku la saf. musique Sénégal moom fu mu toll nii. Mhm. Wally Seck fi mën gaa yee ko wax. Wally Seck moo mën. wala d'accord ci yow d'accord aussi moo mën ci yow. yow nag non man Ndiogou Mbaye d'accord ma ci loolu. xam nga d'accord ma ci loolu. Mhm. parce que moom daaxuma way. isi amay dégg. waaw daaxuma way. barke Cheikh Abdoul Karim Mbacke daaxuma way. seede yàlla. bi billaahi billaahi billaahi dàqu maa way waaye nag. dàqu la way te waase ku mu àgg àgg ko fa. man Sénégal kenn dàqu ma cee way mais nag da ngay déglu da ngay déglu nag bala nga may jaxaseeg nit ñi. wala ma noppi waxoon na ko fi Sénégal mën ngaa noppi wala mënoo noppi. dama ni Wally <laughs> ma wax wala nga wax. waxal laay déglu. wala mu noppi. ngeen Wally Seck dàqu la way. ma jaxase ak kenn. non jaxase la Wally Seck dàqu ma ak way waxtaan la sama sëriñ barkeb sëriñ Abdou Karim Mbacke mhm. kii bàyyam laa la waatal sëñ Fallou. mooy suñu seen ñun ñëpp sëñ Fallou mi doomam laa la waatal. Mm-hmm. dama ne waal dàqu maa waaye. Mm-hmm. Euh, dama koy nangul ni. Mm-hmm. li muy musique Sénégal. maanaam xale bu ko ci bëgg a dab. di nga liggéey Ndiogou Mbaye bu bëggee dab waali day liggéey. gën naa ci côté way. ndax macha allah. ndax li may wax nii sax mën naa koo catu te bëgguma catu nit. nit lépp lu muy wax rek. day wax macha allah. civilisé na mi ngi dimbali ay nit mi ngi def lo xam man defaguma ko li wal Seck li def ci musique man defaguma ko fim dem man demaguma fa limu liggey liggéey man liggéeyaguma ko parce que moma ma ci neeg bu lëndëm bi te mën na ma jogu mën ko mbàkkee mën ma togal ni may sa mo yone ma dem sa dégg ma ndax sama mag mm-hmm. la mo mag moy sama kilifa te dama koy cëral ba ilaa yom akbar mais bu ay woy ak yoy ko génn ni da ngay gëm sa bop xam ni yow yaa ngi dégg. Mm. ku mën a ñëw ci àdduna jàppal ni yow yaa ko dàq woy waaye nag na nga ko cëral. te xam ni moom sa baay la ndax mag baay la. Mm-hmm. waaye xoon baay la ci man ndax sama mag la. Mm-hmm. mu koy cëral rek respecté ko. Mm-hmm. mais dañuy génn ci ay côté ma ay way ak yooyu après indiwaatal beneen question. mu nekk loo xam lu am solo mais madame et messieurs comme ni ñu ko gisee mbokk mbokk internet yu Wassare TV Dakar Media Click Dakar euh, ñoo ngi toog ak kii l'artiste boo ne moom la ñu tuddee le Mbappé euh, le Mbappé de muy kii di Ndiogou mbay gis ngeen fu ñu dugg mais dafa ba léegi dafa des beneen problème boo xam ne tamit sénégalais yi peut-être gisoon nañu fi artistes yëpp man jour boobu damaa rus pourquoi gisoo fu Ndiogou Mbaye hmm. muy stade de Coro ba ñu koy inauguré stade Abdoulaye ah, woon nag. voyagé woon. mu voyagé woon nekk man woo nañ ma. Ah, artistes yi ko booy man lu xew Sénégal ñu ma man maay xale bi xew ci jamono maay borom bagage yi. Mm-hmm. man bu ma ñëwul bagage yi du dugg. loolu moom dafa leer bagage yi dugg moom man bu ma ñëwul xale yi duñ yi duñ jug ambiance. man maay yëkkati xale yi maa leen di chauffé loo mm-hmm. parce que bandi maay man Ndiobou Mbaye yaa leen mën gaa yi. non du cadre man de yàlla moom man baal man man yàlla ok amul problème mais maintenant garaaw. kenn mënul dara. waaw d' accord man man man woon damaa mën. man damaa mën. voilà. Euh, tey yàlla nga yàgg mën. amin yàlla ba yow yàlla nga yàgg mën. Mhm. te xam naa yow tamit mën nga ba pare da ngay jéem affaire de kii kii yooyu noonu quoi moo tax. Euh, maintenant euh, tey jii kañ ngay dem extérieur. extérieur. dinaa dem de. kañ nga gëj naa fa trop. musoo fa dem de wala mosoo fa dem. ah dem naa fa moom mu la fen dégg naa deux deux jours nga fa am. non mën naa fa def sa une jour. non dama leen laaj. non non dinaa dem parce que. xam nga dinaa dem de sa dem bu nga dem laa wax. non dinaa dem dem dem dem dem yóbbu ay nit. xam nga loolu ñëwagul léegi nañu wax si dem bi nga dem dégg naa deux jours nga fa def. waaw mais mën naa fa def sa une jour loolu loolu loolu xamoo dara ma la mën a expliquer gëj nga fa gëj man la gëj naa fa. ñaata jours nga fa def noppil. te wax leneen benn question damay laaj damay ne la ñaata jours nga fa def. ñaata jours yi ma fa def loolu concerné wu la. dégg naa mbokk am na ku ma déena ma euh, deux jours nga fa def te deux jours yi peut-être gars yi ñu bëri na wax naan Ndiogou Mbaye lu ko tàddee lu gën lu gën a bëri mooy tey jii day changé moom day comme day changé à fois tey jii bu amee beneen ménageur soo mu changé waat grand soo mu changé waat. non man man nag sama àdduna ñaari ménageur rek laa ci musam moo juddoo sama ndey ak sama baay ak yaa ngi dégg muy Najib. Hmm. ak Baye Keleel Mbaye. Najib moom dégg naa mooy loolu. waaw non Najib Najib man ak moom ñu ngi ci jaamu lañu nekk. lu tax ngeen tàggalikoo kon. parce que dañoo dem ba mënatuñu liggéey. Mhm. te jëkkër ak jabar dañuy sëy ba mu yàgg ñu tàqalikoo. ce n'est pas l'exemple parfait désolé. non xam nga tey li tax ñu bàyyi bàyyante. Mhm. Euh, man du toog di la ko expliquer am te du ma la expliquer. Mhm. parce que maanaam je pense que nga jégal ma quoi ci kàddu yi parce que waxuma ak yow. mais damay wax damay wax ak doomu aadama yi may seetaan pour l'instant waxuma ak yow. ñi may dama leen wormaal bu baax ndax dama leen respecté vraiment euh, mais li tax man a moom àndatunu euh, yaakaar naa ne jógewul ci moom jógewul ci man mm-hmm. yàlla moo dem ñuy ànd bu mu yàgg yàlla ne fii lay yem mm-hmm. mu yem foofu noonu mm-hmm. te bi mu fa yemee ñaawul ndax musuma toog c'est la première fois biñ biñ biñ tàqali ko léegi ëpp na ça fait trois ans xaw ma deux ans maa ngi ciy a wax nii non laaj nañ ma ko ay yoon yoon yaa ngi ko mujjee laaj mais du ma ci wax. Mhm. parce que samay mag dañ ne ma bu ci wax man dama ay kilifa. Mhm. mais comme que yow dama ci sama ménageur. Mhm. Euh, je pense euh, dama saa yi nag maa ngi job ay nit ñu bari. fu am nga ménageur wala. non man man ay ay ay ndaanaan lay joobal. ñu may ay ndaanaan lañ. mais dégg naa ay ndaanaan ngay joobal mais ndaanaan yu bëri comme ni koy waxee yaa ngi tëgg soirée yi. soirée macha allah moom foo foo woote mu daal di fees yaa ngi sax préparé après dee si ñëw. Euh, sa anniversaire boo xam ne lu am solo la. mais ñu bëri la naan Ndiogou Mbaye ba léegi mu commencé di tëgg ay maanaam ay ngénte ay jàkkaarloo est-ce que du lool peut-être waroo ko dépassé tamit. non man maa ngi tëgg mariage ba léegi ak ngénte. te même su ma demee foofu nag. non du cadre dépassement sa fan si ñoo bëgg nga dépassé foofu. c'est ça le problème waaw du cadre dépassement du cadre du cadre may tëgg. Euh, samay nit la ñu mm-hmm. may tëggal noonu ñooñu dañ ma bëgg Wally Seck day tëgg mariage mm-hmm. Pape Diouf day tëgg mariage mm-hmm. Sidi Diop day tëgg mariage ba léegi Youssou Ndour mën na sax tëgg mariage mais ak ak ni ñu ak yow koy defee du benn non non man ni ñu defee rek defee man mariage booy mën a def da ngay baas ba mu rafet woo waa Sénégal baas ñu décorer ñu tekki chaîne teg

non man man sama ménageur moo raw ci ménageur yi mooy papay ménageur yi nga naan wér nga yow sama ménageur mooy moo leen mën moo mën ménageur yi ne Sénégal yëpp parce que chaque samedi ak dimanche dañuy tëgg. muy tëgg muy fête ak muy tëgg. BST. waaw muy lijjanti ay contrat yan contrat la di non samay contrat du ma la wax. mais peut-être bokk na ci objectif yooyu. waaw mais samay objectif pour l'instant nag euh, sama projet bi ma nekk mooy suma album. Mhm. Euh, vraiment maa ngi ci di sàkku ñaan Sénégal di di la di wax yow nga ñaanal ci euh, di woo télé yëpp nag pour ñu jàpp ci promotion fii moom sa télé la ñett yëpp waaw mais waaw ñii nag <laughs> am na télé boo xam ne moom mm-hmm. moom laa gën a faral nag waaw mm-hmm. ah. muy Dakar Midi waaw parce que kooku moom njëkk jël nag mooy deuxième mag bi ah, boobu nga tudd mm-hmm. euh, ñoom ñoo njëkk ñëw ci ci yëmbal jël ma émission ànd ak idali baaxkat bi muy wax ni yàgg na trop 2013 la. 2013 2014. moo ma la woon 2013 kii eh, ñi ñëw si anniversaire bi mu doon lu am solo mm-hmm. ngi koy ah mais mais mais yow. la mooy sa problème dépassé bi man fan la man. fan dama gis. Mm-hmm. ma gis talent. dama la siraan saa naat la. Mm-hmm. saa naat télévision yu bëri. ma gis sa voix. waaw mais xam la mooy problème bi. ñun danoo xaw a yor nag mhm. jukkoy li sëñ lu waxoon ni tepp tepp moo gën yuréet te ay ndaw lan nag mhm. te boroom karaw gu ñuul lan danoo ñàkkagul dara mhm. te dañoo maanaam dara dafa dañoo jaralul ñuy jaay suñu ngor kon dafa am nekk ci musique bi di jaay ay ngor wala non du cadre musique jaay ci ngor ñun dañu mënul euh, di yàqamti ndax xam na ni li ñëw man maa la fii ban ban laa la ko waxal. 22h48. li nekk suñu kanam. Mhm. li nekk suñu kanam. Mhm. dañ koy jëli te dara duñu téye. incha allah ñun. Mhm. li nekk suñu kanam dañu war cee jot. dinañ ni ko ñépp. téye te kenn mënu du nit moo ci mën dara du doomu aadama buy dox du nit. moo ci mën dara xanaa yàlla suñu. yàlla suñu waaye du man du koo xamante ni. da am karaw. ami loxo hmm. ami tànk yàlla rek moo ci mën dara hmm. ndax nit ki lu mu def nit hmm. muy sëriñ ab sëriñ bu liggéeyee nit mu jàpp yàlla tax damay déglu rek ma wax yàlla la comprendre nga man mii li may wax fii moom la soob bu ma woyee mu war a siiw yow boo waxee mu war a siiw moom la lépp lépp dañ koy jël teg ko ci loxoom bàyyi koog moom mu gérer. ndax dogal muy appliqué moo ñu gën star. est-ce que yaa un dégg mm. star bu mag bi la. mooy noble bi garmi bi. <laughs> Diogo un bëgg euh, si bi un den dernière partie bi. Mm-hmm. le 18 yaa ngi koy waaj bu baax a baax. le 19 yaa ngi jiw incha allah mm-hmm. le 19 la maa ngi woo mm-hmm. di woo Sénégal di woo di Afrique. le 19 c'est mon birthday. c'est birthday c'est le birthday. bu buzzee groupe bi la. parce que groupe buzzee groupe bi maa ngi ko defee woon Sorano. Mhm. le 24 décembre même pas 3 mois yàggul. mais bii ci la Ndiogou Mbaye juddu. Mhm. ma ci woo sama xarit yëpp ñi ma juddandool sama copain enfance yi ma jàngandool école. Mhm. suma maas yi maa ngi leen di woo ñu ñëw toog dagg suñu gâteau féete. ma invité woykat yëpp. incha allah invité naa sama képp kuy woykat. nekk sama morom. ak ñi ma mag. man maa ngi leen di invité. ci bis bi ndax bisu woykat la woykat yëpp a parce man nag chaque jour maay woyaate da ñëpp ñëw woy ma mhm. maa ngi invité ñëpp bàyyiwuma kenn mhm. ba kii doog a commencé woy mhm. man maa ngi lay invité ngeen ñëw di invité diaspora bi di woo Sénégal di woo ñëpp di wax ni yàlla na ñëpp am jàmm yàlla na Sénégal jàmm yàgg ñuy belli di falaale di sànneeku <laughs> en tout cas en tout cas rendez-vous à ne surtout pas manquer le 19 Inshallah, c'est le rendez-vous des chics c'est le rendez-vous des bronzés l'élégance le raffinement dakaroise avec Ndiogou Mbaye incha rabi à ne surtout pas manquer Moi, moom manque Inshallah. li ci kanam. sénégalais yi ñu ngi fi nañ dañu warate ay ndeysaan asgor su bëggee fu mu leen dellu fa day teey dañu naan teey ci ndox la ne waaye ci ni la dàqeew boo bëggee fu mu dellu fa <laughs> waxoon naa ko les hommes ah des na des na toog

Mandiaye Seck mën la bëgg Waly Seck mën la bëgg maay rakam soo nu mu niroog Waly. Mhm. Mandiaye ngay gën a niroog nag. Waly waykat yi man maa gën a niroog moom. Mhm. suñoo bokk deret. voilà man ak Waly mhm. ni Waly doxee sax lay doxee ni muy solo sax lay. waaw waay waay yooyu non du dama ko imité parce que sama mag la. non yow da ngay dóor ah? nekk si ginnaaw. si ginnaaw non Sidi nag Sidi Diop nag bu siiwee c'est grâce à Waly da ngay déglu nag Eh, eh bu ma yëngal. pourquoi léegi artistes yi ñëpp ko défendre Wally. non da ngay déglu eh, eh Sidi Diop Sidi Diop. non yéen man ci télé la taxaw di wax Sidi Diop. ngeen mhm. Sidi Diop Sidi Diop. da nga xam Wally moko ni bo feugé buntu bi. hmm ubi wuñu hmm duggal forcel ar bi am nga ci place. Wally soxoron bi koy wax yaangi fa. Mhm. maangi fa. Mhm. té seetaan nga vidéo yi. gis nga esthétique yi. gis nga lepp Sidi Diop dafa nek ci yoram Wally ak moomul musique bi de. Sidi day doxal ba mu neex. mais yeneen top ngeen topp Sidi job top si ginnaaw waa Seydou. kan moo topp si ginnaaw Sidi job non attends tey jii yow. yow man Sidi job dama ko faale man man dama faale Sidi job yow isa wér nga. Mhm. Sidi job di sama rak nga naan ma kii. man Sidi job xam sama lan la. Mhm. c'est mon petit frère xam laa ko jàppee. Mhm. comme Biram bay mee taxaw. man ak moom ñoo bokk nday ak bay xam laa yéene Sidi job billahi wallahi da ngay déglu nag max la da ngay jaxase fi mu ne nii yow. non jaxase wu ma lu la dafa leer. léegi artiste yi xam la ma doon ñu sonn. mënuñu juboo animateurs yi ñooy jaxase artistes yi artistes yi nag muus leen xam leen ni Ndiaga Mbaye nee na bu njëkkoon ndaanaan dataan gane ji ndaanaan ndaanaan jàpp loxoom wan koy kéeram waaye léegi si ndaanaan day bañ ndaanaan léegi si ndaanaan day poñe ndaanaan ndaanaan day fekk ndaanaan fa mu waree doon ndaanaan mu naan ko doo fa ndaanaan xanaa xamoon ni ñii di ay ndaanaan ci naan man maay waykatu waykat yi bu ñu bëggee dégg ay way dañuy ñëw ci ñoogu mbay toog di déglu ay way maa doonu samay maam biraama kuma jaar kumba war a doggooy sama maam man maay ñuy may ee eh, ndaa ngay doon dama ko doon su ma neexee nelaw di way

<laughs> merci beaucoup merci mon frère. merci beaucoup et bonne continuation yàlla merci beaucoup frère. merci beaucoup frère. merci beaucoup d'avoir pris votre temps de nous suivre maintenant il est temps de donner du temps aux autres paradigmes en attendant je vous conseille de manger beaucoup de bananes et rendez-vous le 19 inshallah, avec Diogoumbaye.